gën jëf mbokk yi xam ngeen ne tey jii di dimanche le 29 mai 2022 ñu ngi fii ci stadium Iba Mar Diop kan moo ñu fi andi borom Bawol production kooku mooy Assane Ndiaye mooy mi nga xamante ne bii moom lañ tuddee le roi de stadium Iba Mar Diop heure bu fi tëggee rek macha allah stadium bi day amaat beneen xar kanam day fees dell macha allah tey nag l' expérience face à la jeunesse la. am na takkusaan ak Eumeu Sène am na takkusaan ak Souley Doob am na takkusaan ak champion yu bëri ci lamb ji Cey Mbay Aliou Seye Junior bëreg armée bëreg Mame Balla bëreg Gouye Gui bëreg Balla Gaye numéro 2 bëreg Balla Beye numéro 2 cey mbay bëreg Baye Mandione Eumeu Sène ak Souley Dop waaye bëre naa Gris Bordeaux Mansour cey mbay Diouf expérience face à la jeunesse tey ca Mansour ñu jàll ci beneen combat ngi noonu di jaajëfal suñu mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm salaam seen jàmm mooy suñu mbégte bégee na leen bu baax a baax ay ca mbay fëgal bu bawol mbooloo ak ki nga xamante ne bii mooy bébé Saloum 3 bu écrit Doudou Baka sar mbay fëgal la moo jàkkaarloog ñun ki nga xamante ne bii mooy bébé Saloum trois moo ñu won gannaaw attention mbay dóor na mbay fëgale cokkaas na bébé Saloum mi ngi kay ërtal mi ngi dox ci kawam attention bébé Saloum remis na mbay fëgale bébé Saloum attention doorante nañ jàppal mu jàpp mbay fëgale daw na jàpp ko tur na ko xale ba bañ na laay laa la jàppante nañu ca kaw mbay fëgale bébé Saloum 3 mbay fëgala jàpp na ca gannaaw ngemb la fa mu jàpp baax na bébé Saloum 3 ngay wut fa mu jàpp kii écrit Doudou Baka Sarr la waree kii écrit Bawol mbooloo la waree attention mbay fëgala njaay tina ko andi ma ngi koy ŋoobu ma ngi koy ŋoobu mbay fëgala ngi koy ŋoobu tuur na ko lay laa xëy la la attention jeexagul de mbay fëgala bébé Saloum 3 mbay fëgala jàpp na ba mu dëgër bay fa mu jàpp baax na attention mboot bébé Saloum ma nga doon mboot mbay bañ bébé Saloum ma ngay door ca suuf bébé Saloum ma ngay dugal ay bay fagala bay fagala sukkar bi ne ko daan na ko la ilaha daan na ko bay fagala daan na ko tàccu leen Baol moo ngem boo bu am naat bi mooy bëre ak Bécaye 2 bu école d'élite Mansour Mbaye Ama Junior Bécaye 2 arbitre sifflé na génn seen diggante attention Bécaye cokkaas na Ama Junior ak Bécaye 2 Bécaye 2 moo am ngemb bu xonq bi attention Ama daw na jàpp mot na plaqué na xale bi rëcc Ama jàpp na ama jàpp na attention laa ilaaha illallah ama war na ko ndombo ruur na ko daan na ko ama junior daan na Bécaye 2 waaw waaw maa la ko wax ama junior bu kër Mbay Fall daan na Bécaye 2 bu école de lutte El Hadj Mansour waaw waaw ay ca ba léegi journée Assane Ndiaye borom Bawol production Libidor am na avertissement booy maalaw lay jàkkaar lool ñaari arbitre yaa ngay concerté wu lan la ñuy wax ñoom ñaar Matar Diouf bëgg ceeb mooy beneen arbitre bi arbitre ba soufflé na diggante Libidor Sénégambi ak booy maalaw écrit yëmbal mbooloo booy maalaw moo am ngemb bu rouge bi moo féetee loxo càmmoñ Libidor moo féetee loxo ndeyjoor ñaari njool yu ndaw lañu ñu ngi lewaatoo lewaatoob kaw ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi na tekk di déglu sa moroom super étoile fële ca États-Unis maa ngi lay ziar di la bàyyi xel Aliou Sène fële ca Allemagne nduyu naa la jaajëf Moussa Faye Brésil borom lamb ji Libidor booy maalaw lewaatoob kaw la lewaatoo ñi ngi déglu wante lii la tubaab di wax round d'observation arbitre nee na ngeen bëre arbitre nee na ngeen bëre Libidor def na déplacement dagg lewato bi Boy Malaw moo féetee loxo càmmoñ Libidor a ngi dox ci kawam Libidor bu Sénégambia Boy Malaw bu Bawol mbooloo booy maa booy maalaw bu yëmbal mbooloo ay ca Libidor mu ngi dox ci kaw booy maalaw Libidor moo féetee suñu loxo ndijoor attention Libidor cokkaas cokkaas na mais dalul Boy Malaw Libidor kii Sénégambia la bokk kii bokk yëmbal mbooloo attention Libidor cokkaas na mais dalul Libidor Boy Malaw booy maalaw na lan xew nee na booy maalaw taxawal bëre avertissement verbal la ko jox attention Libidor a ngi cokkaas mais dooragul door bu tal booy maalaw remis na mais dalul attention ñoom ñaar bu ñu jàppante war naa mën a jeex Libidor Boy Malaw Boy Malaw cokkas na attention Boy Malaw nga koy gëdd mi mën na léegi wante demul attention doorante nañu ku ci nekk door na door cokkas na Boy Malaw door ko gauche droite mais dalul Sey Mansour Libidor Boy Malaw attention booy maalaw dóor na li bu door fayu dóor jàppante nañu daw nañ daje eh am na mbëkk de daa mel ni est-ce amul mbëkk hey eh, booy li bu door daan na booy maalaw li daan na booy maalaw li bi door daan na booy maalaw ko wax booy maalaw jógal booy maalaw li may defal mbër tegal xool lin may defal mbër loolu mooy calu carrière loolu mooy calu carrière la war a bëreel moo war a bëreeg combat bi ci làmb carrière nga noona Mansour jox nañ ko benn sengoor ma nga koy takk ca ndigg la laa làmb làmb bëri bagage cey carrière jërëjëf ñu ngi toll ni mooy ngi noonu ci huitième combat bi diggante Toubacouta ak Malam Ñaani Toubacouta mooy borom Buur Saalum Toubacouta mooy borom lit simple bi mais mañ tey Toubacouta mobilisation bu am doole la def xoolal ma tirbit bi nga jàkkaar mañ lii yëpp Toubacouta moo ko andi macha allah Toubacouta nee naa la tey parti stade bi jàkkaarloog ñun ñëpp moo ko occupé ba mu fees dell macha allah ay ca malam ñaani ñu xaar ki ñu tuddee drapeau bi drapeau bi wàcc borom drapeau bi wàcc Mansour Lass Badiane mooy wàcc noonu. Malam Ñaani ak ki nga xamante ne bii mooy Toubacouta ña ngay xool Malam Ñaani ndax niin na wala niinul xool nañ Toubacouta ba pare Mansour jëlal ma Toubacouta jël na protest a dent dugal ca biir gémmiñ ga cay Toubacouta borom buur Saalum a noonu wante Malam Ñaani kenn moom

saa Touba ngi noonu di dugg si doomu ndeyu Modou xarañ loo doomu ndeyu champion yi cëy saa Touba waaw waaw cëy Mansour Touba Fouta toj na mbapat yi nee dama bëgg a toj arène bi wante malam ñaani na ko bala ngaa dugg ci arène bi di ko toj da man ngay jàkkaar lool ma freiné la ma jëflanteeg yow daan la jël ba nga xamante ne bii amul benn werante won la ne mënoo bëre jàngal la bëre tegaat la ci sa tegaat tegaat la sa place waaw waaw. malam ñaani école de lutte Manga 2 Toubacouta écrit campement cey Toubacouta waaw waaw Buur Saalum cey Buur Saalum cey Mansour eh xoolal la mu andi cey Buur Saalum kenn du moom Toubacouta arbitre baa nga leen di laaj ndax pare nañu wala pare wuñu arbitre baa nga leen di wax lamb la mu bëgg ak la mu bañ cey Mansour cey bi combat premier combat spécial la arbitre laaj na ay sixième ndax pare nañu laaj na ñaari mbër yi ndax pare nañu soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar Toubacouta Malam Ñaani Malam Ñaane ngi dox ci kawam attention Toubacouta Toubacouta changé na pied attention Toubacouta Malam Ñaani door na Malam Ñaani door na Toubacouta reculé Malam Ñaani attention kawo attention Toubacouta attention eh lay laa xel la Malam Ñaani dooraat na Toubacouta jàpp na Toubacouta jàpp na Toubacouta jàpp na ma ngay caxabal xale baa ngay génn malam ñaani jàpp na attention malam jàpp na kor na malam jàpp na ba mu dëgër malam jàpp na ma ngay caxabal xala ba tegg na caxabal ba Touba ngay door Touba ngay door attention Touba ngay door Touba Kouta malam ñaani Touba Kouta malam ñaani attention malam ñaani jël na plaqué xale ba bañ plaqué na Touba Kouta bañ malam ñaani ndengeñ na malam ñaani ndengeñ na attention Toubacouta am na ñaari ngemb malam ñaani am na ñaari ngemb cey Mansour ànd ak mbër a metti xoolal ña ànd ak malam ñaani ci kaw tribune ba oh la la la la la la la làmb ngi nii Toubacouta ak malam ñaani Toubacouta malam ñaani ndengeñ na sëq ñaari loxoom ci ngemb na tekk di déglu Toubacouta Toubacouta door na Toubacouta door na attention caxabal na weñ na attention ma ngay mboot lay laaxe la laay attention malam ñaani malam ñaani laxas na oh ñaari xale yi bëre nañ oh malam ñaani Toubacouta malam ñaani takk na oh poids ba malam ñaani Toubacouta weer na ko poids ba mu daanu malam ñaani takk na Toubacouta weer ko poids Toubacouta weer ko poids bi Toubacouta weer ko weer bi wala moo sot yére bi ziar si jàmm sant naa mais tey dafa mel ni bi dafa am lu mu la jaraloon non lii fo la rek lii ay combat préliminaire la rek ba mbër a jël ay coups yu metti naan fo non mais espoir la fo moom mënul ñàkk fo def ay gartombe ñu dóor mais bi lan la li nga andi dafa bëri parce que grand combat laa bëgg man mbaru mbaru mbaru réew laa sama mag a nii giri lépp lu mu def si làmb naa ko topp. lan nga bëree lan nga bëree. ñëw bëre wan ni foofum góor la sport la dama ñu ñëw bëre jaayante doole du xeex bu jëree xeex ñu xeex bu jëree bëre ñu bëre loolu kese la. ci ci li ko daane ñëwal ci li nga ko daane. non dama ko bàyyi mu takk ma kott ko tëdd ak moom dama ko bu doole xale nga wér ko poids waaw léegi léegi nag fan nga jëm. Ah, léegi fan nga jëm kan nga soxla. man fils de Balla laa bëgg ñu jox ma ko. fils de li nga wax bu baax. mais bii mooy sama neuf combat. bii moo ko ko dee lan moo tax nga dee ko fils de Balla. yaa ko ñoom yow xanaa gaañu nu gaañu nu Balla nga. bu mën di ñëw baax mu tee ay drapeau ak fi muy bëre ñooñu bërewuñ ko man mii di wax ak ñoom bërewu bërewu ka ñooñu ñooy ay adversaire am dañ koo xamul nag moo tax mais li ci kanam raw lu bët. Saloum. mbër ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu wér. mbaa yaa ngi si jàmm. maa si jàmm baax. mais a a bëre. nee na bi amul lenn lu sedd. waaw amul climatiseur. amul ventilateur bëgguñu sax lu sedd. wallaahi bëgguñu sax lu sedd. nee na ma dafa tàng jër. xamuñu luy hôtel. Bawol lañ dëkk. Bawol Bawol lañ. mais mais loo koy wax. li ma koy wax lenn na dëggal boppam rek ma du ma ko daan du yàgg sax loo ko andil tey li ma ko andil doole ju bëri fulla ak fayda dem sama yoon la jaral fii du fii may bëri nii du sama lamb lii du yoon may bëri nii du la combat bi jaral du ci kanam di nga xam ni ma jaral sama bakkan laa si teg te bu ma seq ko sani ko jaxaj dégguma bu leer laa lay tëjal loo ci teg seq sani ci kanam dina leer ma loolu jaajëf otol le grand champion takusaan bu ne bëre na ko fi macha waar ayca waaye ca mbër ñu ngi lay ziar. maa ngi ziar bu baax borom xale bu forox nga waaw mbaa mais man tamit dama forox. <laughs> loolu kenn waxatu ko ñaari ñaari ñu forox la. xanaa déggoo hôtel bu tàng bi. hôtel bu. bu tàng. bu tàng bi. waaw kon hôtel bi c'est amul ay clim ci biir. non non amul ay clim. ruq yëpp a set. bu tàng jërëñ ne. foo laal ay xal la nag. mais mais xale bi ngay xam nga ko. waaw xam naa ko waaw. xam naa ko booy carrière xam naa ko. waaw ñàkk ko mbaa moo tax ma jël ko tamit. parce que damay toog gis nga maa ngi. xale bi mi ngi ci yoon de. ah mi ngi ci yoon. waaw dama ko war a freiné nag. loo loo ko andi. dama ko bëgg a freiné. xeex la wala bëre. indi naa ko lépp. xeex wala bëre. lu mu lépp lu lambu laaj rek indi naa ko. ci kanam ci kanam tuuti. jaajëf maanaam day leer. grand aca Mansour ña nga ca combat spécial ba diggante hôtel Dior bu école de lutte Manga ak carrière bu écrit Bawol carrière nee ma maa ko doon xale maa ëpp doole maa ko dàq bëre wante fii nga wane carrière attention Dior la ak Ndama hôtel carrière moo féetee suñu loxo càmmoñ carrière cokkaas na hôtel Dior fayu carrière hôtel Dior eh, jël na coup hôtel Dior dox na ci kawam carrière hôtel Dior ah, attention hôtel Dior daw na jàpp hôtel dafa mel ni xeex bi lay daw daw na jàpp carrière kor na ko carrière kor na ko carrière jàpp na carrière jàpp na kal na ko lay laax ila la hôtel Dior attention hôtel hôtel Dior mbërëntaan la attention carrière nga ko jongle jongle na ko hôtel Dior bañ cey doole carrière doole la koy jaay wante hôtel Dior mi ngi jàpp fa mu jàpp attention caxabal ba sori na la ilaha illallah eh hôtel Dior nga ko doon mboot carrière caxabal na ko hôtel Dior teggi caxabal ba mboot ko ñoom ñaar ñu rëpp daal di jogaat ak carrière jàpp na ñaari loxoom hôtel Dior jàpp ñaari loxoom sey lamb sey Ayda Njaay mooy way nee naa la way ci lamb la bokk carrière jàpp na hôtel Dior door na léegi attention carrière ngay sentiré attention takk na ko laay laa xëy la laa oh eh la hôtel Dior carrière carrière sori na sori na ci hôtel Dior takkoon na ko waaye bàyyi na fa mu takk dafa mel ni dafa mel nii carrière hôtel Dior daf koo gën a ñeme léegi nag hôtel Dior carrière journée Bawol production Assane dimanche le 22 mai fii ci stadium Iba Mar Diop cey hôtel Dior carrière ñoom ñaar ku ci nekk jàpp nga hôtel joor benn loxoom la jàpp carrière jàpp na ñaari loxoom carrière a nga koy jongle ma nga koy jongle waat na ko doole doxul jàmm daan na ko lay laaxee lola waaw waaw doole carrière carrière daan hôtel Dior doole doxul jàmm waaw waaw hôtel Dior Carrère daan na ko hôtel Dior mag la waaw hôtel Dior dafa maa nuru mag waaw dooley xale bokkut ak dooley mag waaw ziar naa leen delloo ziar bër non man xale laa dama am doole corona ba léegi damay entraîné barke borom Touba Mbacke ku dul moom sax su ma ko fi jàppee dama koy daan loolu maa moom. mais dañoo gis nga ñëw commencé ko imposer naa la nga waar ziar naa la maa ngi lépp jàmm waaw moom nga maa ngi rek. mais mais tey xale bu xale bu nekk ci yoon nga waaw yooyu amul yooyu nañu bàyyi nañu bàyyi wax yooyu. nee na nee na mag la ak. lamb moom lamb la rek lamb moom lamb la rek mbër nekk na ci yoon nekk na noonu naka la nekk ci yoon ñu daan ko loolu du dara mais Mbaye Diouf tey lan la andi. waaw pare ni ma war a pare rek yàlla na ma yàlla may ndam ci kawam loolu rek laay pare am. mais xale bi ngay bëreel miin nga ko xam nga ko. non xam naa ko seetaan naa ko bu baax. lan la mën a. non li mu mën a moom après di nga comprendre. tey lan nga ko andil bëre la wala. ci kattanu yàlla yàlla na ma yàlla may ndam ci a Mbaye Diouf na ma yàlla may ndam mën nañoo gis Mbaye Diouf ba doon bare ba ay ñoom Ama Sène ak ñoom su lay doon waaw ci kattanu yàlla yàlla na ma yàlla dooleel nga gis loolu tey tey mën nañ koo xaar yàlla na ma yàlla dooleel nga gis loolu tey mbër ci kanam. ci kanam jaajëf jaajëf. dama ne la. ay ca mbër ñu ngi lay ziar. ah Youssou Ndour ñu ngi lay ah? ziar. maa ngi doon ziar. ana waa école de lutte Balla Gaye. Assane ba yaa ngi si jàmm. maa ngi jàpp baax na. ay ca nga am tey champion bu mag ñu naan ko Mbaye Diouf. jëndul ci làmb euh, nekk sama ci làmb tey lan nga ko andi. waaw sant yàlla rek di ñaan yàlla buul di nga ñaan yàlla yàlla may ndam sedd guy ñu gis ñu fi mujjee ni fi mujjee tey combat bi ko waajee waaw waaj ko ànd samay mbokk rek samay mbokk laa àndal rek damay jox nag lan la la combat bi jaral combat bi mu gis géew bi nga xam lu ma jaral foo ko teg foo teg combat bi nee a bëre rek loo ko dara andil xeex wala bëre non mën a jeex xeex mën a jeex bëre dégguma mën a jeexe xeex mën a jeexe bëre sans départ rek lu man nga fekk ah? nga fekk ko ci bër ci kanam ci kanam yàlla na yàlla dolli jàmm ay ca Mansour ma nga noona Mbaye Diouf ak Youssou Ndour ña ngay xool Youssou Ndour ndax niin na niinul arbitre baa ngay xool Youssou Ndour ndax yaram ba niin niinul mooy l'ambassadeur de seen sol ci Grand waaye nag ànd sa doomu ndey mooy El Hadj Mbaye mii toog macha allah gannaaw gi yëpp ñëw nañu laas laas moo dalee ko bitim réew ñu tuddee ko moo def ay mokkal lu rëy. Mbaye noonu Mansour am na takkusaan ak Ama Sène am na takkusaan ak Souley mais ban ama seen la ban ama seen. benn. Mbaye Diouf daa retardé. bii bëre na ak ama seen. déedéet Mbaye. daan na su lay waa mais lamba demee noonu nag. Youssou Ndour la am. étoile montante. xale bi nekk école de lutte Balla Gaye waaw waaw. Mansour waaw waaw bi sama xarit la nag xaleb Jurbel la ñoo bokk dëkk Njaareem sanda la dëkk waaye ku bëgg la Matar Diouf arbitre yow. <laughs> kenn du yow yow tamit. yaa sa ruq sa ruq la waaw waaw seeraas daa am Barcelone. am Manchester United am Real de Madrid am Liverpool am Liverpool am na ñëpp am am am am Bayern Bayern Munich cey Mansour kenn du moom sama caméraman bi yaa mën ci mim réew kenn du yow yaay sama xarit maay sama doomu maa ki yow ndax ak suukar la naan da ngay boole nan wala nga boole sànni yëngal tuur wala yëngal naan arbitre soufflé na diggante Youssou Ndour école de lutte Balla Gaye Mbaye Diouf écrit Bawol Matar Matar Diouf mooy arbitre combat bi nee la sama mbokk Bawol Bawol la njaarim la dëkk champ de course la dëkk ay sembulaan mooy équipe am dendandoog ay CCAC GAC ay ca diggante Mbaye Diouf Youssou Ndour Mbaye Diouf Youssou Ndour l'expérience face à la jeunesse gis nga Mbaye Diouf mi ngi arrière Mbaye Diouf mi ngi arrière Moussa Faye ma nga Brésil maa ngi koy nuyu Youssou Ndour même na dóor Mbaye Diouf ref recul deux pas taxawaat super étoile le grand champion ma ngi États-Unis d'Amérique du ko fàtte ziar naa Binat ma nga États-Unis d'Amérique attention Youssou Ndour dóor na Mbaye Diouf dafa dóor Youssou Ndour remis Mansour Youssou Ndour Mansour ak Mbaye Diouf attention Mbaye Diouf génn na Mbaye Diouf jël na avertissement arbitre ba suuf la waat na attention daw na nu jàppante lii est-ce baax na ci Mbaye Diouf Youssou Ndour jàpp na Youssou Ndour jàpp na Mbaye Diouf a ngay wut fu mu jàpp attention Youssou Ndour attention ay lay lay la la Youssou Ndour caxabal na ko daan na ko doole doxul jàmm l'expérience jeunesse gagné na ko xale ba jaay na ko doole caxabal na ko daan na ko jël bu rëy xalaatoon naa ne jàppante ba arrangé wul Mbaye doole yamul doole yamul da nga doole. maa ko wax ma noona. waxoon naa la ko oh, na ko. quel quel fair play oh. ayca Mansour ñu ngi ak euh, Assane Ndiaye moom mi nga xamante ne bii moo jiitee Bawol production tey moo nekkoon dimanche le 22 mais assan nga organisé woon fii ci stadium Iba Mar sa digganteeg stadium Iba Mar lan la. non moom ko tey ko ci sama loxo bi sant Sénégal nag sant amateurs yi di gërëm waa Bawol heure bu ma wootee ñu ñëw damay wax mbëri na leen ëpp leen ma supporter parce que gox laa dëkk gox laay liggéey su ma wootee ñëpp ñëw maa ngi leen di gërëm. ñaan yàlla réew mi yàlla def ci jàmm di encourager Idrissa Gana Gueye jox nañ ko ay soutien ñu ngi ci ginnaawam yaakaar naa ne Sénégal yëpp tey liñ def fii kontaan nañ ci ñu bëgg Sénégal nag di gërëm mbër yi surtout supporters yi ñëpp ñëw macha allah maa ngi leen di bëggee am naa te lool tey jii ndax euh, biñ taxaw taxawalee journée bi am na ay yàqkat yoo xam ne yàq nañ côté bu ne mais man digluwuma leen li ma li ma opté woon rek journée bi ñu commencé ko ci jàmm mu jeex ci jàmm am réussir te macha allah am nañ mbekk daal loo xam ne am na fu mu commencé waaye amu fu mu yem. mën nañ jàpp ne am nga satisfaction. bu baax a baax a baax a baax. démb. tuddee ko ay nit ñu baax. avant ñu ñëw ci stade bi ñuy jaay benn billet ci stade bi laa am réussir total ma ciy sant yàlla baax nag ndax làmb. démb avant ngay ñëw ci stade bi may ñëw ci stade bi ñu jaay benn billet laa am réussir. di sant yàlla nag xam nga lu jëre sant yàlla jëflanteeg ay doomu aadama yu baax yu gëm seen bopp macha allah ma ci gërëm Sénégalais yëpp nag ndax jox nañ ma bopp ñii di ma ñaanal ñii di ma jàppale. képp ku yàq nag bul yaakaar naa la diglu wala naa la tontu xam nga lu ma opté liggéey réussir dem indi leneen teg. mais Assane Assane asan asan oto bi nekk ci kanam la ñuy corné. mi ngi noonu moo tax du ma leen xool duma leen geesu. combat bi bi mu taxawee gis naa ci audio yu ne xam leen di jàkkaarloog ñoom te buñ ma gisee duñ wax loolu kon ma xam ne li ñuy wax du dëgg li li am solo mooy gëm sa bopp xam li ngay def man ko ba pare bëgg ko amour dafa baax ci liggéey secret bi mooy gëm li may def bugg ko te mun ko mu jaral ma ma dem fu ne loolu rek la amul leneen. nga jóge ci journée bii di waajal beneen journée nga tuddee ko ku mag muy sa Gana Gueye wax nga ko sànq Afrique du ma wax Sénégal Afrique yëpp fu mu toll nii nekk ci gannaawam ndax geste bi nga xamante ne bii def na ko fële ca Paris Saint-Germain sa diggante Gana. xam nga nit da ngay gëm sa bopp man Medina laa dëkk te Gana am na cër Medina sénégalais la Gana sénégalais la ña ñoo xam ne duñ ay sénégalais ñoo taxaw di soutenir Gana waxantuma ñun li ma def nii tey bépp sénégalais waroon na ko def te Gana nag ah, du ñeexu ñebe kenn de fa fubal xam nañ ko de. fi muy fubal Sénégal aussi xam nañ ko ndaanaan la am na cas am casasas sas réseau am base mi ngi noonu nag fu mu taxaw day joxe macha allah yàlla na ko yàlla taxaw yàlla jàppale ko ñu ñu ngi ci ginnaaw ginnaawam tey ba suba ñu ngi ci ginnaawam fu mu nekk mi ngi fi Tidiane Faye ak kéwél euh, bu bawol ñoom ñooy bëri combat bi. jaajëf maa ngi lay bëgg nag. di di nuyu nday Mbacke. Mhm. li tax ma dàq si yu bëri bàyyi leen ñu dugg. Mhm. dafa liggéey ci combat bi moo ko Mansour. Mhm. maa ngi leen di jaajëfal ndax làmb nii la xeebante jaru ko nañ nañ liggéey bokk liggéey bi mais nag toog fële nekk si sa ruq def lu la neex ba làmb ji ñëw nga ñëw jël dem ah du ma nangul kenn jaajëf. jaajëf Assane merci merci beaucoup. mbokk yi loolu moo amoon tey fii ci stadium Iba Mar Diop tey moo nekkoon dimanche le 22 mai nekkoon journée Bawol production Assane Ndiaye moo ñu fi woowoon ci ay combats yi nga xamante ne bii macha allah yëpp a neex mais tamit yëpp àgg grand combat bi gis ngeen ko noonu. moo doon dox ci diggante Youssou Ndour bu nekk école de lutte Balla Gaye doon bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy mbay Diouf bu écrit Bawol expérience la woon ak jeunesse mais mel na ni tey jeunesse moom moo won boppam ki nga xamante ne bii moom mooy expérience Youssou Ndour ne woon na ma maa ko ëpp doole maa ko gën a doon xele maa ko dàq bëree te arbitre bu soufflé damay dox ci kawam jàpp ko daan ko dem ñibbi te noonu la ko defee mbokk yi Leewtoo TV ngeen àndaloon mbay Babacar ak Mansour Fall di daje incha allah beneen yoon ci beneen làmb fii ci Leewtoo TV làmb kese làmb dong làmb kepp yéen ñi abonné gul daw leen ngeen abonné Leewtoo TV tey commentaire di ma laalal j'aime sama gars yi caaw caaw ba beneen yoon ci beneen làmb